asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy safoo ci 313 digital le site qui vous donne des informations fiables et net ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen wax ne leen euh, dal leen ak jàmm ci lu gën a fës dañ koy daal di euh, dooreek ak ki nga xam ne moom mooy euh, Pape Malick Ndour nekk ministre de la jeunesse de l'emploi et de l'entrepreneuriat moom Pape Malick Ndour nag ci jamono yi la ñu wees am na propos yoo xam ne yëkkati woon na ko nit ñi nag di ko ñaaw loolu lool sax ba mu waxee que ne euh, bu Sonko bu nanguta wuyu di le 16 février bi euh, dina daal di euh, dajale mille jeunes ngir ñu daal di koy jël ligoté ko daal koy yóbbu foofu nañ ci tribunal ba li nga xam ne nag moom Pape Malick Ndour waxoon na ko daal di euh, jur li nga xam ne moom mooy ab polémique euh, nit ñi di laajte ana nan ministre de la jeunesse mën a waxee euh, yenn kàddu yi waaye nag démb ci conférence de presse wala point de presse bi nga xam ne daal nañ koy def moom ak Mame ak ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Seydou Sow moom nag Pape Malick Ndour yëkkati na ay kàddu yoo xam ne teg ko ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Ousmane Sonko moom Pape Malick Ndour mi ngi wax que ne si Sonko meurt on héritera de sa femme mooy. li waral nag kàddu yi nga xam ne li waral kàddu yi Pape Malick Ndour yëkkati ko mooy que xale yi dafa am yenn kàddu yoo xam ne dañ koy foowee jamono ji mooy ku dee sa yaay dafay juuraat loolu nag nekk kàddu yoo xam ne dañ ko war a interdire bu baax a baax moom nag Pape Malick Ndour mi ngi wax que ne euh, loolu noonu ngeen di wax naan ku dee sa yaay juraat waaye du demee noonu da jël sa place euh, si sa yaay waaye nag mu dem ci Ousmane Sonko ne ko yow moom bés boo deewee dañuy dondu euh, sa jabar loolu nag mu nekk kàddu yoo xam ne euh, nit ñi ñu ngi koy ñaawluwaat bu baax a baax di laaj ana nan la ministre de la jeunesse euh, di waxee li ni mel ca boobule jamono mu war a euh, taxaw ndaw ñi ci nan la ñuy amee li nga xam ne moom mooy liggéey moo gën yenn kàddu yi mu koy daal di yëkkati. ñu jugee foofu tamit dañuy daal di dem feneen ci Ousmane Sonko ba léegi ci li nga xam ne moo xewoon ndiki démb foofu noonu ca corniche ba ni ko policier yi ni ko waa BIP waa gendarme. ma daal di taxawloo foofu noonu ba mu jur ay altercation ñu bëri nag euh, ci ñoo xam ne ay influenceuse dañ influenceur que ça soit Afrique euh, Sénégal fépp ñoom euh, daal di nañ génn ku nekk daal di tuite daal di bind di ñaawlu li ni mel recul démocratie bi nga xam ne nemmeeku nañ ko suñu réew ki nga xam ne moom mooy Ndeye Ndack nag nekk ab animatrice présentatrice moom nag daal dinay publier ci page Facebook moom Ndeye Ndack mi ngi wax que ne incha incha allah yow del ree rek maanaam Ousmane Sonko yow del ree rek bu kenn gis say rongoñ euh, tiitange wala naqar incha allah yàggatul monsieur le président je condamne fermement cet acte ignoble Ousmane Sonko le peuple est avec te yàlla euh, dina la jàppale incha allah loolu nag Ndeye Ndack moo ko euh, daal di euh, xamle ca page Facebook am buñ jógee foofu itamit dañuy dem ci ba léegi ci bile procès la ñuy daal di desandi Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko comme niñ ko waxee woon ni ki démb moo nekkoon bile procès ñu daal di koy renvoyé ba le 16 mois de mars dafay daal di ñëwaat encore une fois ci histoire Sénégal waaye nag moom euh, ci rapport bi nga xam ne Ousmane Sonko nee na moom moo épinglé euh, ki nga xam mooy Mame mu war a wax IGF inspection générale des finance mu ne IGE inspection générale d'État moo épinglé Mame Mbaye Niang alors que demeewul euh, ni ni ci la Mame Mbaye daal di buruxlu daal di koy ji porte ji plainte waaye nag responsable responsable du corps de contrôle ñoom nag daal di nañuy génn daal nañuy tranché li ni ñoom ñi ngi xamle que ne euh, rapport bi existé wul maanaam rapport bi nga xam ne Ousmane Sonko maanaam IGF bi nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi wax que ne moo épinglé Mame Mbaye Niang responsable du corps de contrôle ñoom nee nañ rapport boobu noonu amul. que rapport boobu noonu amul mu nekk loo xam ne nag il n'existe pas de rapport Prodac aurait déclaré les responsables du compte du corps de contrôle maanaam ñu ngi noonu nag loolu la corps de contrôle yi daal wax que ne boobi le rapport amul te Ousmane Sonko daal dinay juré que ne rapport boobu noonu épinglé na ko waaye nag lu jaaxal sénégalais yi mooy que moom Mame Mbaye Niang na en direct daal di wax que ne rapport bi am na Amadou Ba ba ci Birahim Seck euh, forum civil moom daal dina ci bind ab livre loolu nag jaaxal internet yi bu baax a baax waaye waaye nag lu ci mënti am mooy que le 16 mars lépp nag dina daal di leer bu baax baax a baax est-ce que rapport boobu am na ou loolu euh, dinañ ci euh, xam euh, dara bu paree foofu dañuy daal di dem feneen ba léegi ci Ousmane Sonko la ñuy daal dese ni comme ni ngeen comme ni ngeen ko xamee rek jamono ji wala semaine bi wala niki démb ak tey moom mooy def li nga xam ne moom mooy ba ci réseaux sociaux ci langum politique waaye nag Ousmane Sonko niki démb benn live bi nga xam live bi nga xam ne daal dina koy def moom nag annoncé na ab plainte di wax que ne dina ko déposé euh, ndiki euh, tey waaye nag ci yooyu plainte kuñ ci commencé du kenn ku dul le ministre de l'intérieur Euh, Antoine Félix Ndiom ak tamit les généraux et chef de la police qui son les donneurs d'ordre les commandants de et maanaam Ousmane Sonko nee na ñooñu lay daal di euh, porter ji plainte nee na nag wóorul ba xam plainte boobu dina am dina am suite ou pas mais l'essentiel mooy que ñoom dinañ def lu nga xam ne loolu la yoon daal aw wax comme que ci dëkk yoon lañ daal di nekk kon c'est normal mu daal di ji porter ji plainte waaye nag moom ba léegi mi ngi am ay doute est-ce que dina am benn jeexital bu positif wala l'essentiel lañ ci mën a jàpp daal mooy que Ousmane Sonko moom da annoncé na ab plainte di wax que ne dina topp ñi ci yoon